PDS. waaw mais Karim 2024. dañuy dañuy sant yàlla bu baax. Mhm. pour la bonne et simple que lii ma gis une certaine presse di ko def. Mhm. ñun ñu ngi xaar sax yeneen attaques yu gën a violentes pour la bonne et simple que. Mhm. xam nañ ne du yomb ci ñun xam nañ également que état du Sénégal c'est-à-dire Amadou euh, ngi alimenter une pour ñuy dal ci kaw Karim comme pas possible parce que lii hmm, doyen c'est grave li nga wax nii grave na de c'est manque de courage bi Karim Wade wax ci lettre da nga ci am preuve ci li nga wax ni dama ci am ay preuve bien sûr preuve yi mooy ah non non Ndiaga Ndiaga Ndiaga non non bul accuse bul accuse gars eh, yi du ñu nangu nga toog fii non non mais c'est ça du ma delluwuma ci ginnaaw. loolu kon da nga koy assumer assumer mais da koy wax nii rek da nga koy wax nii rek dans le vent sans problème su fekkente ne li ma wax Amadou Ba gis na ni amul amul problème am na fu mu mën a jaar ak. non non yow kay presse bi nga accusé. non doyen wax na ko tout mais xam nga yenn yenn une yi ku ko déglu da xam ne yow du plume bi wala sénégalais perception bi ñuy am ci bind bi mais benn nit nga viser pour détruire ko. te li mu wax dafa pourquoi pourquoi nga bëgg nga bëgg directement nga ne Amadou Ba la alors que y a am na ñeneen pourquoi pourquoi pas waxoo par exemple Thierno Alassane bi leen attaqué waxoo keneen keneen. ci ñëw da ngay xool kan moo ci am intérêt. kan moo am intérêt ci Karim Wade bokk wala bañ a bañ a bokk cest à sooy wax yow Thierno Alassane Sall je dirais que moom moo ci am intérêt moom dañ ko yónni rek ñoo la. Ah dinañ dinañ ci du ko bien sûr. si loolu ko ci ci ci ci ci ci ci lettre bi mu. dem waaw j'ai je veux juste dire Thierno Alassane Sall li tax ma ne la amu ci intérêt moom man ak moom ñoo bokk dëkk commune Thiès Ouest ñoo bokk dëkk ville de Thiès ñoo bokk département de Thiès. élection locale yi ñu génn. yow foofu nga koy ramener quoi xaaral non mais damay ñëw damay remonter damay ñëw à la base boobu. yaa ngi bëgg a wane ni. dama la bëggoon ne la ñun amul poids amul poids. en fait affaire bi ñun ñi nekkal Karim Wade Thiès. Mhm. xam ne amuñu ministère amuñu dara bu ñu demee élection au niveau de du département de Thiès ñu ñooy raw Thierno Alassane Sall. gis nga législative yi ñu génn xam nga bannière coalition Yewwi lañ demee élection législative. Mhm. mais ñi nga xamante ni dañ ne ñoom seen xol mayu leen ñuy jël beneen xob bu bokkul la xobu Ablaye Wade di ko dugal ci urne maanaam benn benn yooyu moo tolloog li Thierno Alassane Sall am dans le département de Thiès <laughs> donc kon tey quand on parle de légitimité politique waaw c'est ça la réalité interroger les résultats dans le département de Thiès législative yi ñu génn et pourtant Thierno Alassane Sall était tête de liste d'une coalition nationale dama jàpp ne sax li mu nekk tête de liste moo tax mu sacrifier ñi ci des parce que les sénégalais n'ont pas voté pour eux plus fort reste lañ jàlle kon donc kooku côté légitimité politique laa bëggoon a régler ba pare wan ko ne ko le parti démocratique sénégalais ay booyu Karim Wade ay pion wu Karim Wade ñoo ko ëpp doole ci département bi ñu nekk loolu benn la beneen bi ci des ki mënul gagné commune am amul intérêt pour Karim Wade bañ a bokk ca élection le PDS de trente des présidents de conseils départementaux des adjoints au maire. non Thierno nee na combat de principe lay mëne. non combat de principe. kan moo perte mais yow Karim wax na fi Karim ci lettre bi nee na carrément am na ay information ci ay candidats am nañ double nationalité et il ne va pas le dire mais écoutez pourquoi tamit kenn du wax ci ci réew mi. Karim c'est ce qu'il a dit nee na am na ay information ci ay candidats yu am double nationalité te du ko dénoncé loolu est-ce que grawul tamit. yow di nga jouer sa équipe sa équipe nga xam ni équipe beneen dafa fraude. Hmm. nga ni am na joueur yoo xam dañu leen a fraude ci équipe adverse bi mais du ma ko dénoncer. Ah, mais du ma ko dénoncer. mais mais mais daal c'est parce que. bi may football nawetaan waaw yow sama équipe xam nañ ne équipe bii moo ñu mën téeméeri junni man j'étais pas légal man sama bopp équipe boobu ne ñoom duñ déposé duñ déposé duñu duñu duñu porter réserve parce xam nañ ne buñ jouer ci terrain bi ñu gagné donc loolu du débat da ngay déglu ma expliquer la xam nga lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy débat bi. non leen mu nekk débat ngay wax. non dama ni xam nga lan mooy débat mooy ndax li Thierno Alassane Sall wax dëgg la wala du dëgg ndax li Karim Wade wax dëgg la wala du dëgg c'est ça le débat Thierno Alassane Sall li mu wax. moom hmm. xam na ni du dëgg. ah bien sûr xam na ni Karim Wade amatul nationalité française xam na ni aussi Karim Wade musul am double nationalité musu ko mosul am double nationalité. mais yow journal journal. waaw non Ndiaga Ndiaga Ndiaga Ndiaga tant que defuñu la. journal journal officiel bi wane ni. dessaisiru na ci nationalité am. waaw kay. ah wax nañu dadi kon mosu ku ku amul deux deux nationalités nooy dessaisiré wu. ci benn nationalité léegi ci foofu laay jógee ñu dugg ci débat de fond man du ma daw débat mën nañ ci waxtaan y a pas de souci Karim bi mu juddoo la nekk Sénégalais bi mu juddoo. en 1968 ci la nekk sénégalais demal ci code de la nationalité sénégalaise article 5 et sénégalais l'enfant légitime né d'un père sénégalais donc bi mu juddoo la nekk sénégalais bi mu juddoo aussi la bénéficier wu d'une nationalité française ndax sama parce que ba ndayam mooy tubaab ba pare mu juddoo fa donc boo jëlee double nationalité ak bi nationalité da ngay juum ci débat da ngay fausser débat bi xam nga kan moo am double nationalité mooy ki dem ba majeur dem ci beneen dëkk demande fa nationalité ci propre gré te kooku ci suñu code ñun code de la nationalité sénégalaise ba tey article 16 kooku il perd sa nationalité sénégalaise perd la nationalité sénégalaise le sénégalais majeur et qui acquiert une autre nationalité par sa propre gré il perd sa nationalité sénégalaise Marième Faye Sall ñun ñëpp dégg nañ ni am na nationalité américaine lan moo tax Thierno Alassane Sall du Marième Faye Sall di voter Sénégal du wax ne Marème Faye Sall dafa dégg am na nationalité américaine donc warul warul voter. Ndiaga fi ngay yóbbu débat bi du foofu. xam nga fan la débat bi nekk xam nga bu France li mu génn di wane ni Karim. waaw di bind na leen. pour décisir ci nationalité ba loolu nangul nañ ko en date en bi national la ba tey d'accord naa ni am na nationalité française mais du double bii la génneel double bi. Mhm. boobu nag ci la bind depuis 2018. état française wax leen ne leen nekkatuma bëggatuma nekk bopp français lan la ko française wax lan la loi française wax dafa wax ni soo ko déposé moment bi nga koy déposé nga toog juróom benn weer kenn tontuwu la soo déposé ne dama bëgg a renoncer ci sama nationalité française nga toog juróom benn weer kenn tontuwu la jàppal ne acte nañu sa sa sa sa renonciation ci conseil ci ci ci ci nationalité. loolu la loi française bu la neexee kay mën naa la. donc donc dès lors lay déglu. nee nañ la boo ko déposé soo toogee juróom-benn weer état française ñoom après dinañ wax lan moo tax ñu yéex a tontu. mais dès lors 2018 la ko bind. 2018 la ko bind. bi mu toogee juróom-benn weer bu ñu ko tontuwul moom état français jàpp na ni. acte nañ ni Karim Wade nii nekkatul de nationalité française de lors que loolu am na bërki démb la ko état bind tey la ko état française bind tey lañ ko du def tey la décret di génn loolu du moo ci am solo li ci am solo mooy li loi bi wax 2018 la ko déposé six mois après c'est fini il n'est plus français donc débat boobu moom Thierno Alassane Sall laa wax li may wax nii moom xam na ko mais dès lors que Amadou Ba amul courage taxaw jàkkaarloo ak Karim pour wax li nga xamante ni moom la Thierno wax ñu envoyé ko man nag li ma jaaxal mooy ban rapport la Thierno Alassane Sall ak dëkku bi muy woote. ak vraiment république des valeurs bi muy wax nga xamante ni dinaa ci ñëw sooy wër pour ñàkk valeur on aurait bien aimé avoir quelqu'un de de la république des valeurs parce que non, mais, non parce que attaques yi attaques yi pour essuyer ko non pour essuyer ko démb am na ku nekk république des valeurs ku fi toog oui oui waaw donc man bi may ñëw fii bu ma hmm. sañoon dama fiy daje ak kenn ku bokk république des valeurs mais dama ne ñoom mënuñu ñu jaay benn valeur pour la bonne et simple raison la famille dafa yàgg man je me rappelle en 2014 bu ñu tëjee Karim Wade kaso j'avais déposé une déclaration de manifestation marche pour la libération de Karim Wade à l'époque Thierno Alassane Sall était ministre des transports ma dem AIBD déposé jël repos médical jël jël congé pour dem organiser sama marche bi ma ñëwee Thierno Alassane Sall daf ma dàq donc du moom moo ñuy jàngal tey ay valeurs cent droit dàq sans droit parce que tout simplement j'ai organisé une marche pour la libération. boobu yaa ngi liggéey foofu. maa ngi AIBD. donc tey du Thierno Alassane Sall boobu. Thierno Alassane Sall dafa dafa jiite woon AIBD. non ministre des transports. ministre en tant que ministre. ministre bi moo la dàq. moo ma dàq te pourtant loolu Ceesuwaay yu bëri bind nañ ci ñii wax nañ ci même des responsables de l'APR wax nañ ne lii c'est pas normal parce que moom am na droit quand responsable am nekk en prison mu mu taxaw défendre ko. donc du kooku moo ñuy moo ñuy moo ñuy moo ñuy jàngal beneen bi de Thierno bi mu génnee affaire bi mu ñëwee. mais euh, njëkk yaa ngi koy def débat de personne. mais si parce que moom mooy moom li nga yaa yaa indi à la une boo ko indiwul woon du ma ci wax bi mu génnee ci majorité bi bi mu ñëwee opposition ñun ñoo ko dalal installé ko ci biir opposition bi donc tey dama jàpp ne am na loo xamante ni su demee ba mook Amadou Ba seen i relation demee ni mu war a demee. bu Amadou Ba dee demaat sant santaane sal bulo yi mën na ko sant keneen ku dul moom surtout que Amadou Ba man dem naa bureau Karim ay yoon fekk ko ci salle d'attente bi mu toog di xaar <laughs> waroon na am beneen merci Ndiaga nekk naan day dénigré dem nga bureau Amadou Ba dem naa bureau Karim Wade immeuble Tamba yàgg na mu parce que loolu il faisait ñaari yoon fekk Amadou Ba ci salle d'attente bi mu toog Thierno wax na ko dem sax ci émission fekk Ndiaga nag vraiment yi ngay wax nii vraiment c'est bien beau quoi mais c'est du déballage qui. voilà non c'est pas du déballage mais loolu loolu kii wax na ko fi comment il s'appelle. Ndiaga Ndiaga Ndiaga Ndiaga débat bi il faut aussi mu nekk. non damay ay daje nañu fii. Ah, seen naa Sonko muy du kër Macky gis naa ko bureau Amadou Ba. gis nga yooyu noonu en fait suñu suñu suñu communication mën na évoluer tey su fekkente ne da nga jàkkaarloog ay nit yoo xamante ni ñii dañuy jël débat mu nekk débat de haut niveau. ñu waxtaan sur des question yi nga xamante ni intéressé na Sénégalais yi tey dund gu cher bi ñu wax ci xale yi jël ba gaal bi di dem à l'étranger di di di périr ci ci ci. waaw léegi d'accord Ndiaga mais non débat bi yow kese nañ dellu si ci yow. nañ dellu si ci yow.